seen xarit seen soppe Mor Khoudia Niang coordinateur bu Mbacké moo leen di ziar ci turu Fenam euh, TV ñu gën koo xam ci fédération international Al Malikia fédération internationale am liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi ko sumb àndandoo ko ak ay jàmbaaram ak ay élément am donc suñuy jàmbaar ak sunuy élément ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi jiitu ci ñemeloonu euh, yoon wi wan ñu yoon wi tegtal ñu ko ku ci mel ne alxaaji Moustapha Mbuub donc don sunu responsabilité morale lu ñu mën di nekk ak lu ñu mën di dugg leen lu ci nekk rek mënu ci guider ñu ànd ci ak moom liggéey bu rafet bu am solo mu doon liggéey boo xam ne daanaka euh, joxe ñam lañ koy mën di tuddee ak cas sociale yar xale yi ak jàngal leen loolu yëpp ci la bokk donc euh, boo ñëwee Tiwaawoon ñu toppatoo la euh, lijjanti la boo amul daluwaay ñu lijjanti la toppatoo la ba jox la daluwaay bu mucc ayib nga yëg sa bopp bu baax ne fii nga agsi kat daje nga feek ñi nga xamante ni maanaam lii borom kër gi bëggoon wax dëgg yàlla mottali nañ ko seen yéene euh, ñu ànd koog yéen di ko liggéeyandoo loolu moo waral fédération international Al Malikia ñu ànd ceeg sunu gaay yi nga xamante ni maanaam yàlla dogal na wax dëgg yàlla ba sumbee liggéey ba léegi mosuñoo bàyyi. mosuñoo yokki donc première buddu la ñuy commencé suñu liggéey ak ñoom di séddale suñu ay xéewal li nga xam ne moom la ñu yàlla wërsëgalee ñu ànd ci ak ñoom di set setal dëkk bi donc ànd ceeg éléments yu am solo saa bu ñu xëyee dana ànd ak sunu camion wër dëkk bi set setal ko bu ko yàlla dogalee bu guddi jotee danañ defar sunuy xéewal ànd ak ñoom dikk indi ko ci zawiya bi ndax donc kenn ku ne xam na ne gars yi dañuy jéem a njëkkante euh, di xool ndaxte euh, ñu mën a jege ci biir mooy tax dañuy teel a ñëw ba reer sax du leen fekk seen i kër kooku boo ko fekkee ci biir daanaka nga defar xéewal jox ko ko dafay mel ne li sëñ santaane woon ciy nekk gën bàyyante xel bu baax a baax xam ne ñi jóge ci euh, dëkk di ñëw euh, daanaka bu nu agsee nañ leen yaatal wàcc lal yi jox leen daanaka yaatal xol yi yaatal xel yi yaatal kanam yi ba nga xam ne bu nu agsee danañ euh, jàpp ne sax fii ñu dikk moo dàq fa nu jóge loolu rek lañ doon loon digtal tuuti comme ça ñu dig leen dig daje boo xam ne daanaka du ma sa changé ci kanam tuuti ñu indilaat leen yeneen programme yoo